seen mbokk Abou Taha Mouhamed Alioune Gueye moo ñëw ak yéen ci seen jotaay bi ñuy tudde warattilil qur'ana tartila di jotaay boo xam ni jamaati ahlul qur'an al karim bi Fass da cee bëgg a ak yéen nafar lépp loo xamante ni lëkkaloo na ak njànginum alquran eh, ci règle yi nga xamante ni boroom xam-xam yi tëral nañ ko ko jotaay boobu nag incha allah ngeen mën di ko am di ko mën a topp incha allah ci site officiel bu association boobu di ahlul quran point com man ko am tamit ci sen compte YouTube ahlul Quran ak compte YouTube bi tuddu baytul Quran di la maison du Coran fofu yep inshallah di ngeen fi meuna top jotay yi ak yu demé te lépp nek njariñ sunu jotay bobu nak di waratil Qur'ana tartila dañ ci ñëkke ñëw ak yéen inshallah ci sot taxniku euh téré bobu yi nga xamni da di téré bu am solo ci walu ilmu tajwid te daanaka muy téereb door di téere bi tudd tuxfatul atfal di téere boo xam ni Cheikh Suleymaan al Jamzuri rahimahullah moo ko bind waaye jàngale ci yenn buntu ci fànnuk ilmu tajwid ilmu tajwid mooy xam-xam bi jàngale naka la ñuy jàng alquran ju wér alquran kat mbokk yi borom bi subhanahu wa taala moo ko jox jibril mu jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi jox ko aw xeetam ba mu ko ko jox nag daf ko ko jox ci aw joxin maanaam daa am nu mu ko ko joxe noo xam ne noonu nii la alquran yi ñëwaale ci xeetu njàngin noonu yi nag euh, dafa war a sàmm comme ni ko saxaaba yi sàmmee jële ko ci yonent bi boroom xam-xam yi di ko sàmm ba mu agsi ci ñun boobaa ñu ne dañu war a sàmm njàngin moom yi moo tax boroom xam-xam yi yaxal ko ci ay règle yaxal ko ci am mbind tudde ko qawaidu tajwid téere bi ñu ciy doore nag di tuhfatul atfal téere bu siiw la boo xam ne ñu bari ci ñun xam nañ ko ñu bari ci ñun it mën naa am jaar nañ ci cim njàng wala ci mokkal wala sax ci dégg waaye kon jotaay bi day nekk rek jotaayu nafar ci ñu bari ci ñun ndax nafar gi mën naa tax ñu gën a góorgóorlu ci saa bu nuy jàng alquran rek jàng ko ci njàngin moo xam ne dafa dëppoog njàngin mi nga xamante ni moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jote woon joxe ko noonu saxaaba yi daal di juñ gi ni képp koo xam ne bëgg nga jàng alquran ju wér jànge ko njàngin ma ma ko jote woon joxe ko noonu saxaaba yi wax ni man araada an yaqra alqurana addan kama unzil falyaqra qiraata qiraatan min ummi abd képp koo xam ne daa bëgg di jàng alquran ju tooy xepp set wecc comme nin ko wàccee woon jibril indi ko joxe ma ko noonu na jàng ni ibnu ummi abd di jànge ibnu ummi abd mu nekkoon saxaaba boobu ñuy wax ne ñuy tuddee abdullah ibni mas'ud mu wér ni ci jàngkati alquran yu yu yu mag yi la bokkoon ci saxaaba yi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngal ba seedeel ko man gi joxoñ saxaaba yi ni leen ku ci moom li ngay jàng dina wér ma ni noonu yi nag njàngin moom yi nag la borom xam yaxal ci ay téere tudd ko qawaidu tajwid ni ma ko junñe sànq téere boobu kon di tuhfatul atfal incha allah bala ñuy dugg ci eh, jàngale li ci borom bind di Cheikh Souleymane al Jamzuri eh, sunu jotaay bu njëkk di bii ñu nekk nii incha allah dañ koy jagleel xamale tuuti ci borom xam-xam boobu nga xam ni moo tudd cheikh Souleymane al jamzir rahimahullah te bindi téere bi ni ma ko waxee Souleymane la tuddoon ibnu Xuseyn ibnu Muhammad ibnu Chalabi al Jamzuri gënoon a siiwee ci turu ñuy wax al afandi dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax Jamzur moo tax ñu di ko nisba ci dëkk boobu al Jamzuri mooy ka dëkkoon Jamzur yaa googu nekk ci. baat bi yaa un nisba la comme ñu ni diw as sénégali wala diw al al imarati halu majara kon mi ngi dëkkoon dëkk ba ñox Jamzur Jamzur nag ab dëkk la bu nekk fële ca Égypte soriwul dëkk bu mag boobu ñuy tudde Tanta maam Cheikh Souleymane al Jamzuri kon noonu la tuddoon dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Jamzur soriwul région bi ñuy tuddee Tanta moom dëkk boobu bii bokkoon ci borom xam-xam yi doon dund ci eh, douzième siècle ci gàddaag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bi fi yonent bi sallam bi yonent bi sallam am eh, téeméeri at wala téeméeri at ak ñaar hmm, eh, maa ngi juum <laughs> junni at a ñatt téeméer kon mooy douzième siècle junni at ak ñatt téeméer ñatt mérélu at boobu yi ginnaaw junni Cheikh Souleymane al Jamzuri ci borom xam-xam yi doon dund ci jamono jooju la bokk jàng tamit ci ay sëriñ su bari rawatina wàllug xam-xam bi ñuy jàng di almu tajwid waaye ña ca gën a siiw mën nañ cee lim ñaar ku mel ni Cheikh Nuruddin Ali ibn Omar ibn Hamad ibn Omar ibn Naaji al mashhur bil mihi Cheikh Nuruddin al mihi Eh, tur yi mën naa am xaw naa gudd ci ni ma ko tuddee waaye bu buñ ko gàttalee mooy Cheikh Nuruddin eh, Almihi Cheikh din moom yi kenn la woon ci sëriñi Cheikh Souleymane Aljamzuri jàngal ko lu bare bare bari ci xam-xamu tajwid waaye rawatina li nga xam ne Cheikh Souleymane yaxal na ko ci téere bii di eh, Tuhfatul Atfal moom Cheikh din moom mi ngi dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax mii moo tax ñu ko ci dëkk boobu mooy que dëkkoon ci dëkk bi tudd mii mii googi tamit ni ma ko junjee sànq ab dëkk la bu nekk ci wetu ci Égypte moom it soriwul euh, Tanta maanaam Jamzur gi nga xam ne Cheikh Souleymane fa la dëkkoon ak mii gi nga xam ni sëriñam boobu di Cheikh Nuruddin fa la dëkkoon soriwoo soreewul ñoo bokk benn région buñ nekk moom Cheikh Nuruddin moom yi Cheikh Souleymane al Jamzuri rahimahullah jàng na ci moom xam-xamu ilmu tajwid waaye noonu tamit la jànge ci cheikh bu ñuy wax cheikh mujahid al ahmadi cheikh mujahid al ahmadi nag dafa siiwe woon noonu waaye turam moo nekkoon muhammad abu najah gënoon a siiwe ni ma ko wax sànq ci sayidi mujahid bokkoon ci borom xam-xam yu dundu ci alqarn althani achar lil hijra ni ma ko juñu sànq ginnaaw bi fi yonent sallam jógee wala bi mu gàddayee ba am junni at ak ñett téeméer ci jamono joji la doon dund momit ci dëkk bobu ñuy wax mi ci Égypte Cheikh Souleymane al jamzouri yi jóge dëkkam Jamzour dem fekke ji Cheikh euh ma nga jéglu ma nga jox Cheikh Nuruddin ak Cheikh sayyid Mujahid Cheikh sayyid Mujahid momi i dafa bokkoon ci ñi daan jàngal ci al al ahmadi ci Azhar kon foofii la ko Cheikh Souleymane al jamzouri yi fekk jàng ci moom xam-xam boobu ñuy wax ilmu tajwid lenn ca wala yenn ca ay buntam moom sayidi mujahid moom cheikh sayidi mujahid moom moo daan woowe cheikh suleyman al jamzuri al afandi bi may door ci njalbeen waxoon naa ni cheikh suleyman al jamzuri bokk na ci tur yim siiwee al afandi cheikh sayidi mujahid moom yi di mouhamad abu naja moom moo ko tuddee woon tur woowi ba muy tur wu siiw woo xamante ni mujj nañu baree bari di ko woowe Cheikh Suleymaan al-Jamzuri rahimahullah bind na lenn ci téere rawatina ci fànn gi ñuy wax di fànnuk ilmu tajwid ak fànnuk qiraat mën nañ cee njëkkee téere bi nga xam ne moom lañ tiim nii bëgg koo nafar di tuxfatul atfal wal gilman fi tajwid al quran di téré bo xamne ne da koo bind ni mako ko junje sànq yaxal ci lenn ci bunti tajwid way def ko ay way ay abiyat lu tollok juróom benn fukki bayt ak benn le téré bi ëmb cheikh bi di ci jàngale lenn ci lamu jànge ci cheikh nuruddin almihi rahimahullah lu melni ahkam an nun as sakini wa at tanwin di attee nun gu sukun ak ñaari maska ci alquran lu melni ahkam an nun wal mim al mushaddada attey nuun ak miim bu ñu saddaa ñoom ñaar ci alquran lu mel ni ahkaamul mutamaathilayni ak mutajaanisayni ak mutaqaaribayn ñaari xaraf yoo xam ne ñoo bokk lépp yu dend ci alquran lan mooy seen att cim njàngin ñaari xaraf yoo xam ne dañoo bokk génn kese te bokkuñu ay melokaan lan mooy seenum att cim njàngin ci alquran wala lu mel ni ñaari xaraf yoo xamante ni ñoo bokk ñoo dend génn wala ñu dend ay sufaat te sax bokkuñu ko lan mooy seen att ci alquran xeeti qaacida yooyu yëpp cheikhna cheikh nuru cheikh suleyman al jamzuri rahimahullah jàngale na ko ci téere bi di tuhfatul atfal ni ma ko waxee sànq muy ay way ay bayt toll ci juróom benn fukki bayt ak benn téere bi bi mu ko bindee mi ngi ci noppi ci atum mille cent quatre-vingt-dix-huit ci at moom yi la cheikh Souleymane al-Jamzuri noppi ci bind téere bi noonu la binde yeneen téere am na ci téere bu ñuy tudde Fathul Aqfal bi sharhi Tuhfatul Asfal nga xam ne da cee chara Tuhfatul Asfal gi moom ci boppam am Tuhfatul Asfal bari na ay chara yoo xamante ne ay nit chara nañ ko ko waaye moom ci boppam moom mi ko bind Cheikh Souleymane al-Jamzuri chara na chara ak boppam goo xam ne moo ko chara tudde woon ko Fathul Aqfal bi sharhi Tuhfatul Atfal kadalika noonu la binde ab téere boo xam ne mi ngi tudd kanzul maani bi tahriri xirzil amani euh, téere boobu tamit ay way la da di ci jàngale tahrirat shatibiya xirzul euh, amani wa wajhu tahani mooy téere bi gën a tiiwe ci si gën a siiwe ci shatibiya te alimam shatibi al andalusi rahimahullah bind ko jàngale ci euh, alqiraat li ko tàmbalee ci qiraat naafi ba ci qiraatil kisaa'i kenn ku nekk xam na ni riwaaya yi ak qiraat léegi dañu amay taxriiraat euh, yi nga xamante ne dina am ci benn riwaaya wala ci ab qiraa Cheikh Souleymane al-Jamzuri rahimahullah bind na téere bu tudd Kanzul Maani bi taxriiri Hirzil Amaani di ci jàngale lu ni mel noonu tamit euh, téere bu tudd al-Fathu ar-Rahmaani bi sharhi Kanzil fi al-qiraati maanaam téere bi ñu junj sànq di kanzul maani bi taxrir bi taxriri xirzil eh, amaani bind na beneen téere boo xam ne da ko cee chara tudde ko al fatxu rrahmaani bi charxi eh, kanzul maani fi lqiraati saba bind na beneen téere bu tudd eh, riwayat warsh moom it ab manzuma la yaani manzumatun fi riwayat al imam warsh nga xam ni manzuma boobu da ciy jàngale Eh, riwaayat warsh wala usulu eh, riwaayat warsh ak lépp lu aju ci riwaayat warsh nees koy jànge lan mooy ay usulam ak farshe ak yu ne demee noonu ci la téere bu tudde jaamiul masarra fi shawahid ash-shatibiya wa durra téere boo xam ne mi ngi ko tuddee jaamiul masarra fi shawahidi ash-shatibiya wa durra téere boobu tamit Cheikh Suleiman al-Jamzuri rahimahullah biñ ne tamit téere bu tudd ad durrul manzum fi udril ma'mum biñ ne tamit téere bu tudd at tirazul marqum bi sharxi durril manzum durrul manzum googu ñu tuddoon ci juróom-ñaareelu téere bu ñu tudd juróom-ñetteel bii ñu tudd da ko cee shara tudde ko at tiraz al marqum kon bu dee ci lenn ci turaatam ci wàllu mbind rawatina ci ilmu tajwid ak alqiraat mën nañ cee lim juróom benn téere ba juróom-ñett yoo xamante ni wér na ni Cheikh Souleymane al Jamzuri rahimahullah moo ko bind loolu nag day firndeel ni kon boroom xam-xam la woon ci wàll gii boroom xam-xam la woon ci wàllu alquran ak njàngin yeeg njàngin mi alquran ak njàngin mi maa ngi ci jublu ilmu tajwid alquran ak njàngin yi maa ngi ci jublu alqiraat bu ñu settantelee xeeti yi nga xam ne gis nañ ne bind na ko day firndeel ni kon borom xam-xam la woon ci ilmu tajwid waaye yemul woon rek ci ilmu tajwid waaye yaataloon na xam-xam bi am yàlla yaatalal ko ci ci ilmul qiraat rahmatullahi alayhi rahmatan wasia tamit la shakka am nañ yaqin ci sunu borom ni barkeel na ko ndax bariwaana barab yoo xamante ni di fa dem fekk ñu fay jàng téere الشيخ سليمان الجمزوري روتنا تيرم بيجي تحفة الأطفال أمنا قبول بباخ باخ باخ العالم الإسلامي أمنا قبول بباخ باخ باخ تي جانج كتي القرآن يي مو خم تيك ديالو نيو ديك ديالو ديكو جانج أك ديكو جانجلي مو خم تيك شارع برينا تي برام خم خمي روتنا المعاصر نيو خمني شارع نكو بفيج سنوم ريو دي سنغال أمنا في نيو خمني شارع نكو تي مبند أمنا في نيو خمني شارع نكو تي أي nit ñi di ko déglu di ci jariñu loolu de junj barkeel goo xamante ni téere boobu euh, barkeeloon na ko yal na yàlla fay ko yiw même moom Cheikh Souleymane Jamzuri nag rahimahullah kenn mënta dogg ci euh, man at la génn àdduna wala euh, mu arrixoon yi wala ñuy gëstu ci dundam dajeeguma fuñ dogg ni at sàngam la génn àdduna waaye li moom mooy dund ba ci mille 208 1208 ci alhijriya ci gàddaak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund na ba at moomee ndax at moomii bi ñu xoolee am mbindam ci lañ gis ni ci la bindoon téere boobu tudd alfatxu rahmaani bi charxi kanzil maani ci alqiraatu saba eh, loolu lañ mën a jàpp kon ci ak dundam ni dund na ba ci at moomii waaye nag dogu ci ni ci la génn àdduna wala dogu ci ni Eh, dundaat na yeneen at moom eh, mëneesu mëneesu ko def fi mu ne nii maanaam mënuñu cee dogu ndax li ñu gëstu gisaguñ koo xamante ni yaxal na lu ni mel mbokk yi kon lii moo nekkoon sunu jotaay bu njëkk ci eh, sunu jotaay yi nga xam ne moom lañ tuddee wa rattilil qur'aana tartiila ñu ciy jàngat incha allah naka la ñuy jàng alquran ju wér yàlla ñu borom bi defal tawfiq ci mën a leeral li nga xamante ni borom xam-xam ni bind nañ ko te leeral ko waaye tamit yàlla ñu yàlla defal tawfiq ci buñ ko leeralee ñun ñi koy leeral ak ñi nga xamante ni ñu ngi koy eh, bàyyi xel borom bi defal leen tawfiq ci ñu mën a jàng alquran jàngin mu wér ndax kat jàng alquran jàngin mu wér ak dund ko maanaam jëfe alquran ñaare yi moom farata la ci julit bu nekk eh, tuuru jotaay bi wane na ko wa rattilil qur'ana tartila alquran buñ ko bes koy jàng def koy des koy jàng ci njàngin mu wér moo xam ne day dëppoog règle yi nga xamante ni moom la wàcce woon ci eh, la ca ay nuun yu sukkoon ak tanwiin ñu jox leen seen atte la ca ay miim yu sukkoon ñu leen seen atte la ca ay nuun yu shadda ak miim jox leen seen atte nekk ñu génne ko fa mu war a génne xaraf wu nekk ñu jox ko melokaan yam am la ca nekk ay xëcc ak xeetu xëcc bu nekk atte yam am ñu jox ñu jox ko ko ba mat sëkk waye tamit lu melni ni ni mako ko sank sànq mutamathilay ni mutaqaaribayni mutajanisayni di xaraf yu dende nañu tuddu tax ñu am atte atte yoy yi ñu bayu ko xel bu baax a baax loolu dinañu dimbali bu ñu jange alquran mu wér ta set ñu am ci ngeureumal yàlla subhanahu wa taala ginnaaw bo xamé ni sel na ci sunuy xol ni mom kess lañ koy defal yàlla ñu borom subhanahu wa taala may ikhlas fi lañuy yemal ci sunu jotaay bu njëkk incha allah suñu jotaayam ñaaral ñu ñëw pour dugg nak ci euh téereb Tuhfat Atfal bobu ma fàttali leen yéen nga andon ak Abou Taha mohammed ali ngay ci jotaay yi nga xamni jamiat al Quran al Karim bi fas Touré mi ngi leen koy indil ci di nafar yenn ay ay téré tajwid ngeen man ko suivre inshallah ci site association bi ahlul quran point wala ci compte youtube yi may waji a wax ahlul quran wala la maison du coran yàlla nañu borom bi defal tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh الله الله الله الله رتل القرآن ترتيلا